DG bi wax dëgg am na ay taxawaay ak ay ay engagement yoo xam ne ci moom laa njëkk a gisee DG bu xam ne jël na ko ci par rapport ak ak ndox mi loolu it lu mat a euh, firndeel la euh, waaye li ci gën a euh, kii mooy innovation yu mag a mag yi ci am yoo xam ne nangu noo diglu en tant que ñi dëkk ci dëkk bi di doomi dëkk bi di subir jafe-jafe yi waaye nangoo déglu suñuy xalaat par rapport ak màggal gi ñu jëm liñ ciy teg rek mooy amoon nañ comme ni mu ko xamee moom amoon nañ benn euh, sunu euh, benn euh, étude buñ ñu defoon boo xam ci diagnostic la jóge woon mu jural nu plan d'action mu tàmbali woon di ci dox ñu ngi ñaan yàlla rek bu màggal gi jeexee ñu continuer loolu mu bañ a arrêté parce que problème mu ndox Touba problème mu structurel la suñu bëggee bu màggal ñëwatee mu gën a woyof ci yow gën a woyof ci ñun ñëpp il faut que plan boobu ñu jëm ko continuer exécuter ko entièrement ba xam lan la ñuy jox fii ak màggal ba bu màggal ñëwee ñu mën a xam ni ñu doxee loolu rek laa amoon ci lu ma lay wax ci jëme ci wet goowu parce que gis naa ni li ñu engagé woon ñun ñëpp ci eh, yaa ngi ciy dox boobu ba léegi ah ñi ngi ci nag ci phase d'exécution boo xam ne gis nañ la waxoon nga ni yow doo bàyyi ak équipe bi ak ak ñoom da ñëw toog si ak ñoom ngeen ànd liggéey loolu it bu màggal gi jàllee danañ gis résultat yi waaye rafet na njort baax ci ne suñ plan d'action ren bii nga xam ne ñun ñoo ko élaborer ensemble dana soppi lu bari par rapport ak li daan am Euh, sëriñ bi kon ñu wéyal euh, liggéey bi li jëm ci euh, li jëm ci Ageroute ak ONAS Ageroute mu si xultu bu waxee ne bilan bi mu joxe léegi xaw na maa jaaxal xaw na maa jaaxal lool waaye li ci gën a doy waar mooy bu fekkent ne xam nañ ñoom mënuñoo liggéey nawet te xam ne màggal gi ci nawet li jëm lan moo teewoon ñu mën a préparer par rapport ak loolu parce que gagné nañ du temps mu mel ni màggal gi at yi yëpp ñetti at a ngi nii ci ginnaaw ñuy wax ne màggal gi ci nawet la jëm defe naa disposition yi ñu waroon a jël par rapport ak loolu it rafet na ñu jël ko waaye ñi ngi rafet njort ci ne màggal yu ñu jëm dana gën a ratax waaye ren moom fooguma ni circulation duñ ci am problème donte nag taw bi moom yàlla yàllaa koy wàccee. du tàggu kenn xam nañ ni gis nañ effort yi ñu def waaye nag effort yooyu buñ ko jëloon mu jiitu je crois que euh, dana gën a woyof ci ni mu demee ren waaye nag euh, loolu la yàlla dogal xëy na waaye wax dëgg yàlla ONAS bari na ay tëli yoo xam ne endommagé na ko fii ci digg ci li wër jumaa ji ba fi mu ne nii euh, yàq na complètement dem beeg dikk bi rawatina ay égou yoo xam ne à ciel ouvert la amul couvercle amul dara ci mën na jur ay conséquences yu gara parce que ay ay ay euh, ay canal yu xoote ci am yoo xam ne ko ci tab yi mais c'est fini wala boog ci ay at ngi nii ah, lu mat ñaari at dëkk bi yëpp euh, situation boobu liy dund waxoon nañ ko it lu jiita màggal gi di ñëw mais benn effort gisuñu ñu def ko ci par rapport ak loolu loolu mënuñu su koo ñàkk wax ndax dafa concerné dëkk bi nit ñi di ko gis buñ ko waxut it nit ñi xam nañ ko dañuy jàpp ne kon ñun ñi toogoon fii di wax waxuñu lu ñu xam ci nag nit ñi ñooñu ñoonu tax di liggéey ñoonu tax di di wax euh, euh, mooy wax ne Senelec aussi dëgg la ay ñi ngi liggéey bu baax mais nag yàgg nañ ko wax entretien yi ñuy def dafa war a jiitu màggal loolu ay at ñu di ko wax vraiment bu màggal ñëwee eh, ñuy def ay entretien coupure yu bari yi ay entretien moo koy waral ak maintenance te loolu li muy def ci réseau hydraulique bi xam nañ ko loolu bu fekkonte ne di jiitu màggal kon eh, seen liggéey dana gën a dana gën a yëwén dana gën a feeñ waaye nag lu ngeen mën a def it bu coupure amee faaw ñu ne coupure am na technique na xam nañ ne technique am na ci yoo xam ne mën na bañ dépendre ci yéen waaye defe naa bu ngeen jëloon précaution yi aussi yi ci war par rapport ak màggal gi parce que wax nañ leen ko ba tàyyi ne lu jiitu màggal entretien dafa war a jiitu préparation